um, uh, protective gears, Lina nag bagage la yi nga ay face mask ay dala ak yenen ab jumtuwaay buñ mun a jëfandikoo pour fagaru si lii di nga xam di jàngoro bii nii di Foundation ajara jox ko ministry di ministre bu iarambi wàllu wérgu yaram bi bagage la yu nga xam ne nag ñu ngi ko soxla torop jamono bi kon ngi di ajakma Ma si turi kii di ministre bi lii nag bagage la yu nga xam ne ni nekku da njëlbeeni yoon wala ñaareel yoon waaye sax bii moo nekk ñetteelu yoon jaakma mu ngi dimbali lii di nguuri Gambia jaarale ko lii di ministre bu séntu wàllu wérgu yaram bi ci benn béréb boobu gis nañ UAE ñoom tamit jox nañ lii di bagage si réewu Gambia ñu ngi jaajëfal United Arab Emirates si ndimbal buñ jox lii di nguuri Gambia jaarale ko ministre bu seentu wàllu wérgu yaram bi buñ ñu joxe lii di 250000 ah, gloves ak lii di nga xam ne moo di 20000 face masks 16000 ah, ah, shoe covers ak lii di nga xam ne moo di 6000 hand sanitizers ak 360 wipes.